wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayiduna muhammadinil makin mu ne naa bàyyi ba talaata talaata jot mu ànd ak jaami kër ndeyam ñu mbaakol waaye kër bañ jub see mbaakol daa fekk ñuy noon duggee sëriñ moo daa sa ci kees gi jëm ci jàkka ji yem ci soxna Fàddi jëng si li libaas ñu sëf-sëf yi boole koog jaami kër ndeyam sëriñ moo daa sa ne ko Fàddi jëng mu ne ko mbàkki mu ne ko bën bës laa la jàppaloon mu ne ko altine nga ma jàppaloon de mu ne ko lu tax nga talaata mu ne ko man mën naa naa ki sama mbokk ngir bëgg a ñëw waaye yóbba yi xajul ci altine mu ne naa bàyyi ba talaata lan la ko wax keroog daa tàng jër moom sëriñ moo daa sa jaxate lan la wax Faati Jeng mu a ko mbàkke mu a ko sa tànkum ndeyjoor ba fekk bopp càmmuñ fukki mu ci biir kër gi mbokk yi mu ne si bileen sëf yi dellu kër libaas fii la sa ndigal jamono joojee mbokk yi mi ngi nampal sëriñ am satu jaxate mu doon tu tànk sëriñ moo daal sa génnee ci kees gi jàkka ji daal di koy fàtte waaye xam leen ni ba mu fanaanee ci mbedd mi bët daa sibbi ci kawam waaye bi taw bi demee ba bari ndox mi bari lool ànd ak dënnu ya ngelaw yi daa jël sëriñ setu satu jaxate mi mu doon nampal jël suuf si ba mu toll ni setterle jël sëriñ am satu teg ko ci sëppaayu loxoom ngir bañ ndox mi sonal ko mu sotti ko ci ko am ba bër set naka lañ nodd fajar Serigne a Asta Diakhaté génne ci kees gi yam ci moom ne ko ani koo kii mu ne ko mën a fàjjeñ mu ne ko ani looy def fii mu ne ko bii damaa jub kër gi te nga ni ma bul dugg te xooguma ne nu may def lan la wax keroog jàll ci biir sëñ Modou Asta Diakhaté ne la am naa ker sa de faa Faty Dieng si la mii tey moo xam ne yàlla mën a fay yonent bee man a fay dootoon benn gone bu du Cheikhul Khadim mbokk yi ko fattut laggiwul ami barkaami jaam attana dundi coono gi te xamaa bu ko yàlla di teggi amaana danga ko fekkee déet bu ñuy wax dëgg-dëgg seetxul iraada mooy soxna Faty Dieng Sylla Libaas waaye xoole fi ay sëtam ni gee daan na wax ni li am si sëñ Tuubaa man rek ko am man maa am ñi ma jur ñu di jigéen ñëpp sëriñ Tuubaa dëkkoo leen waaye ñi ma jur ñu di góor ñëpp sëriñ Tuubaa defar leen sëriñ am sëtu jaxate sëriñ Mbàkke jaxate sëriñ Balla Jaxate sëriñ Abdourahmane Jaxate soxna Faati Jaxate soxna Marema Jaxate soxna Asta Jaxate ñoo bokk ndey ak bàyyi sëriñ Modou Asta Jaxate seen waajur waaye soxna Faati Jeng Sele Libaas mooy seen waajur bu jigéen waaye Mohamed sëriñ Saliou mii ngay sant ñaanuk sëriñ Tuubaa gu nangu la sëriñ Soyibu sëriñ Soyibu sëriñ Tuubaa daa ci yéen Jolof ñaan yàlla ñaan gu rëy ba yàlla ayu sëñ Tuubaa sëriñ Tuubaa ne Cerno mu ne ko Mbàkke mu ne ko sun borom day ayu na ma nee na nangu na ñaan gi waaye saa borom nee na naawul soxna soo xam ne juróom-ñaari maamam mosoo dooni jaam ak jafe barki Seexul Xadiim borom daaru war fasam juróom-ñaar téeméeri dërëmi ngurdu la borom daarul moxti la sëriñ tubaa yëkkati jox borom daarul moxti booba dërëmu ngërdu bu ne xaalis bu bari lay doon waaye juróom-ñaar fukki dërëmi ngërdu la Serigne Touba yëkkati jox ko maam Thierno ne ko Thierno mu ne ko Mbàkke saa boroom nee na na nga soxna soo xam ne juróom-ñaare maamam monsieur doon jàmm mbokk yi sëñ Saliou nombul la barki Cheikhul Khadim borom daaru war fas wa dem na penku gisul critères yi sëriñ Touba wax borom daaru dem na gànnaar gisul critères yi borom daaru wër na ba dugg nekk soxna sa Diop fekk fa soxna su baax. su tëdd daal ne soxna sii day moo ko fi bàyyi ma demee seen Tuubaa dana ma ko laaj daal di jël soxna seen lir ko sëñ Tuubaa ceen jolof sëriñ Tuubaa yëkkati loxoom teg ko ci bopp soxna si daa di ko ni Cerno mu ne ko Mbàkke ki ngandil baax na lool de waaye ki ma sun bara wax du kii Cerno mu ne ko Mbàkke demal Mbakol këri sëriñ moo daal sa jaxate mbokk yi boo demee Mbakol Dakar maam Cerno nga fa boo demee Mbakol am na Dakar bi ñuy wax Dakar Cerno boo demee dañ koo miiree de ko siyaar waxtu marax la borom daarul muxti egg si Mbakol keroog ba mu egg si Mbakol moom maam Cerno daa fekk soxna Faat Jaxate waajuru Seex Saalihu Mbakke ma ngay bagg di tere alxuraan maam Cerno di ko xool borom daaru di ko xool ba xam ne mboolem critères yi Sëñ Tuubaa wax daje na ci moom mu ne moo naa sa mu ne ko Mbakke kii la ma Sëñ Tuubaa di wóorloo mu ne ko ndox soxna Faat Jaxate daa dund ba dem kër loolu rek lay dundee mbokk yi sëñ soxna Faati Jaxate keroog lañ ko waajal indi ko sëñ Tuubaa ci yéen Jolof am na Abdul Xuddoos am na Abdul Baaxi waaye am na soxna Tahiratu Mbakke ma ni keroog ba sëñ Tuubaa ci yéen Jolof jëm njaareem daa wax ñaari mbind ramoo ma siiri ilaa Jurbel la daa lasasin la waa yenoo sirrama fii siiri maaraamu bu leen ma yóbbu njaareem li tax yóbbu njaareem ngi di lor ci yéen man Cheikhul Khadim ay xéewal lay nekk ci man waaye ne leen wër na man Serigne Touba ay teraanga ki xéewal rek la nekk ci man mbokk yi teraanga ga mooy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waaye xéewal gi mooy Serigne Saliou sëriñ Touba nekk ci yéen Jolof laxasee ci yéen Jolof ñëw njaareem ànd ak soxna Faati Jaxate mboolem soxnay barsàq yi Serigne Touba dëkkoo woon mennum soxna Faati Jaxate waajuru Serigne Saliou la ci Serigne Touba beral barabu boppam mooy këram googee nga xam ne moo ngi dox ci diggante kër gu mag gi ak kër Serigne Saliou gi barab boobee la Serigne Touba dëkkaloo woon soxna Faati Jaxate soxna Faati Jaxate bi muy jógee ci yéen Jolof ànd ak Abdoul yi mu doon tur tànk waaye li gën yéeme sëñ bi jenn catalogue sëriñ Touba sëriñ Saliou ñu ko jàngal sëñ Mohamed catalogue sëriñ Touba Serigne Saliou ñu ko jàngal bi soxna si jooyee jooy yi métti ngir ki dem. Serigne Touba moo bindu leetar jox ko sëriñ Mbacke Jaxate lan la ko wax Mbacke Jaxate yi muy yooy te muñ te sant yàlla suñ borom dana ko jox doom joo xam ne bu ñu wee day gudd fan day am barke waaye day xettali mboolem ñun jamono teel